waxtu yële passé waxtu yi passé am na ay journalistes ay organes de presse yu titré ne Guy Marius Sagna tëjlu na ñetti tàngana ci kaso bu Camp benn remarque bi may njëkk def mooy nañuy bàyyi di personnaliser benn nit rek woyof ni dunk ni man xaw ma naka laa mun a tëjluwee ñetti naa xanaa sax bu ñuy titre nañu ne xëy na le FRAPP parce que FRAPP mooy def ay communiqué FRAPP mooy def ay manifestation mais loolu amul problème loolu du lu ëpp solo bi li ëpp solo bi mooy ñun waa FRAPP mësuñu wax ñu tëj ñetti tànganaa yi nekk ci biir kaso bu camp li ñu wax mooy prisonnier kaso camp pénal sonn nañu lu tax ñu sonn mooy ba tey jii nii may wax ak yéen ci kaso camp pénal bii ñu ngi naan prisonniers yi mënuñu jot lekk yu jóge seen mbokk ndax lan ndax coronavirus ngeen foog ne dëgg la tey jii nii 9 mai xaw ma 10 mai 9 mai c'est ça. 9 mm-hmm. mai 2022 ñu naan ndax coronavirus kaso du dugg euh, lekk du dugg ci kaso bi. alors que ñun ñu ngi dem tàncaloo stade Abdoulaye Wade wala beneen stade ñu ngi dem tàncaloo ci concert yi ñu ngi dem tàncaloo ci nawetaan yi ñu ngi tàncaloo ci tataa yi ci njaganjaay yi donc ku ñu yépp wax ji mooy ñetti tàng naa yooyu bés bu nekk dañuy verser junni ci administration pénitentiaire bu camp muy fukk euh, muy quinze mille ñetti junni bés bu nekk tàng naa bu nekk ñetti tànganaa yooyu dañuy verser junni muy ñetti junni boo ko multiplier par trente mu def quatre cent cinquante mille en tout cas quatre lu jege téeméeri junni cinq cent mille léegi nag ngir business boobu continuer gars yi tëj ne benn lekk bu fi dugg comme ça ñuy dem di lekk ci tànganaa yi yemuñu foofu ñu ne butik bi nekk ci biir kaso camp bi kenn du fa jaay nen comme ça boo soxlawee nen nga dem jënd ko ci tànganaa bi ngeen fone ne dëgg la ngeen fa ne dëgg na ñun waa FRAPP yàgg nañ fi wax corona business waaye ñeneen moo taxoon ñu naan corona business waaye ndekete ci kaso yi dafa am corona business boo xam ne mu ngi lor jëlmaan yi mu ngi lor ñi caabi féete ginnaaw ñu ngi lor détenu yi ñu ne la benn ndax coronavirus doo jot lekk bu jógee sa waa kër. sa kër ñaareel bi foog nga dem jënd ci tànganaa bi loolu lañ def communiqué bi ñu defee communiqué bi nag ca ëllëg sa ñu tëj ñetti tànganaa yi ñun waxuñu nañ tëj tànganaa yi de nañ leen ubbi ku am xaalis ci jeen bëgg a jënd ci tànganaa bi nañ jënd ci tànganaa bi waaye ñi nga xam ne seen mbokk sori wuñu ca kaso ba te bés bu nekk ñu bëgg leen tibbal <clears throat> mais nañ leen bàyyi ñu tibbal leen ñi nga xam ne bëgg nañ dem jëndi nen wala leneen ci boutique bi nañ leen bàyyi ñu dem jëndi nen wala leneen fii laa génn kaso bu Cap Manuel wax leen waxu bàjjan Xadi mi nga xam ne waaw lépp dafa cheroon ci boutique bi téléphone bi cher gën a cher li nekk ci biti waaye yemuñu woon ci loolu dañoo ñaanoon président Macky Sall ñaan ministre de la justice ñaan directeur de l'administration pénitentiaire DAP ne leen nañu seet seetantal li nekk ci kaso yi parce que ndegam lu mel noonu am na ci kaso Cap Manuel wa mun na am am na ci yeneen fanweer ak juróom benn kaso yi nekk ci Sénégal Sénégal mu ngi am 37 prison fanweer ak juróom ñu ne la nañu audité prison yëpp xool ndax li ma gisoon ci kaso Cap Manuel ñuy sàcc prisonniers yi ñuy tabax ay étage ci ndodd prisonniers yi di leen di fayloo unité téléphone bu gën a cher li ñuy fay ci biti di leen di jaay ay marchandises yoo xam ne njëkki moo gën a cher lu ñuy jaayee marchandise ca Salimata wala ca Kédougou wala ca Ranérou Ferlo loolu du dëkk du yoon nañu audité kaso yépp xool lu fa nekk lu jaarul yoon te muy noot di loraange ci prisonniers yi ñu dindi ko fa loolu la ñu waxoon pour defar ndax ndaxte xëy na Macky Sall yàlla def na duggagul kaso Euh, ñun ñi yàlla nattoo ñu dugg kaso gis fa loo xam ne du dëgg du yoon day salfaaña ak ak yelleefu nit bu ñu génnee suñu warugar mooy jàppale état du Sénégal nekkoon lii am na biir kaso nañ ko jubanti defe defoon nañ ko lu ñu war waaye ñu toog ay semaine toog ay weer ñu ne am na ñetti tànganaa yuy verser cinq mille muy quinze mille ñuy obligé prisonniers yi ñuy jënd foofu seen lekk du dugg du dëgg du yoon donc ñun tëj lu wuñu benn tànganaa li ñu wax mooy nañu bàyyi lekk prisonniers yi dugg biir kaso yi biir camp pénal prisonniers yi di lekk ndaxte relation bi diggante ki nekk biir prison ak njabootam famille am bi nekk ci biir dafa am solo ñi nekk ci biir dañoo soxla soutien affectif psychologique dañoo bëgg di sentir seen waa kër ci woo ci woo ci téléphone waaye tamit ci indi naa la gerte caaf indil naa la beñe indil naa la ndambe indi naa la ceeb nga xam ne sa famille bàyyiwu la seetaawu la lien boobu lañu ñu dagg te du dëgg du yoon ndax lan corona business ndax lan prisonnier business ndax lan jail business waaw di jënd ay oto di tabax ay di tabax ay kër di tabax ay étage ndax lan ci détenu yi dëgg la nag ñun ñoo fii ñun ñoo fi yàgg wax te suñu kàddu ba suñu waxu démb mooy suñu waxu tey ne nañu gestu agent pénitentiaire yi ndaxte ñoom itam sonn nañu agent pénitentiaire yi ñoom ñoo gën a sonn ci homme de tenue yi liñ leen di fay baaxul liñ leen di jox prime baaxul condition yi baaxul waaye nag dafa am ñenn ci ñoom pas ñëpp dañoo jàpp ne comme ñoom nekkuñu ci tali bi di fayee ko mille francs deux mille par oto ñoom ci prisonniers yi lañ ko war a jëlee te loolu du dëgg du yoon prisonnier boo xam ne ci biir prison bi xëyul gontuwul nga naan na nga koy jaay nangam da nga koy forcer mu jënd ci tàngara loolu du dëgg du yoon loolu kon mooy dafa amoon solo ñun waa FRAPP ñu leeral loolu bu ñu jàkkaarloowee tey ak Sénégal yi wax ne dañoo ne camp pénal nañu bàyyi lekk prisonniers yi di dugg bu ñu forcer nit yi di jënd euh, euh, euh, ci. Euh, maanaam ci tànganaa bi léegi nag bi ñu waxee loolu tëj nañ tànganaa ñun waxuñu kenn tëj tànganaa commencé waat nañ jaay nen ci boutique bi waaye prisonniers yi mënatuñu jënd par jour lu ëpp ñetti nen ndax rek pour koñe leen nee nañ leen mënu leen jënd pain sec ci boutique bi ndaxte comme dañoo tàmmoon di di defar nen bu ñu baxal wala omelette ba pare dugal si nen bi ñu ne leen léegi comme waa FRAPP siwal nañ ñu yàq nañ suñu business tëj nañ tànganaay waaye ñetti nen par jour maximum ngeen mun jënd yéen prisonnier camp euh, maanaam ci camp pénal du dëgg du yoon ñaareel bi dootu leen jënd pain sec mun ngeen jënd ñetti nen waaye yéen xam nu ngeen koy neneen nañu bàyyi di koñe prisonnier yi nañu bàyyi di xoxatal prisonnier yi ñun sénégalais nañu bàyyi di wax ne prison mënul neex lan moo tax prison warul neex mais prison bokk na ci li tax ñu dugal la fa pour yar la mais bu fekkee da ngaa bëgg a jubbanti jooyanti doomu aadama ba pare fi nga koy dugal pour jubbanti ko jooyanti ko mais nga koy def loo xam ne yow xam nga ne du dëgg du yoon moom mii nga kay def xam nga ne du dëgg du yoon ba pare nga ne kooku danga nga koy jubbanti déedéet kooku da ngay gën a bon loo xolam kooku danga kay gën a yàq kooku da ngay tax xol bi tàng mais kooku da nga koy gën a yàq. kooku wanoo ko loo xam ne euh, misaal la royuwaay la bu fekkee da ngay dugal nit ci biir kaso mais da ko bugg a defar comme da ko bëgg a defar da koy xool loolu jekk da koy xool loolu rafet da nga koy xool loolu jub waaye doo ko dugal ci biir kaso da koy noot muy gis nootel mais kooku boo ko nootee fukki at juróomi at ñetti at xaw ma juróom benn weer mais bu génnee day jàpp ne lii mooy yoon kon bu mu jaaxal kenn ñenn ñi dugg kaso bu ñu génnaatee ñu gën a bon bi ñu fa duggee bu mu jaaxal kenn nit duggu kaso ndax affaire yu ñàkk fayda benn dank netetu wala xaw ma benn laaj la sàcc ñu dugal ko kaso mu génn mu gën a bon nit dugg kaso ndax rek xëy na ndeysaan dafa amoon ay xarit mu tux yàmba jaayul c'est la première fois sax muy tux yàmba mu dugg kaso génnaat nekk jaaykatu yàmba bu mu jaaxal kenn ndax kaso yi day gën a yàq day yàq sax ndaxte am na ñuy dugg kaso ndeysaan defuñu dara ay innocent lañ woon mais ñu gis ñu boole leen ak ñoo xam ne xëy na dañoo def am expérience donc ñun loolu la ñu wax tëj luwuñu naa li ñu wax mooy ceeb bi na dugg sombi bi na dugg lekk yuy jóge ci këru jeel maan yi prisonniers yi na dugg biir camp biir camp pénal bu ñu leen forcé ñuy jënd ci benn tànganaa boo xam ne ndeketewoo dafa am dañuy fay ku ci nekk cinq mille francs administration pénitentiaire xaalis boobu fu muy dugg tabax kër jënd oto du dëgg du yoon du dëgg du yoon loolu nooteel la loolu la ñu bëggoon leeral ba pare waxaat suñu revendication tey la ñuy gën a wax nañu ubbi prison yi pour seen ceeb seen añ seen reer seen ndékki yuy jóge ci waa ci seen kër dugg fa te ñu bàyyi di business ci kaw ndodd prisonnier yi